mooy suba Ziguinchor la ñuy dem incha allah dañu am yaakaar ni danañ fa fekk un magistrat debout magistrat assis magistrat <laughs> debout maanaam magistrat boo xam ne bi dana sàmm indépendance comme ni ko cour suprême procureur général bi Mariam Diop ni mu sàmmee euh, robbam ak indépendance et cette dame là vraiment elle a toujours été comme ça elle fait partie de la famille euh, de Grand Serigne Marème Diop et d'ailleurs je l'appelle Grand Serigne bu jigéen mhm. elle a toujours été une dame indépendante qui n'acceptait jamais d'être aux autres qui a toujours été digne mais la surprise agréable bi ma am bi passé mooy elle est devenue tellement technique à travers son réquisitoire da doon joxe ay leçons ba pare sermonné agence judiciaire de l'État ci li ñu doon wax li ñu doon demandé non seulement elle nous donnait des cours comme un prof avec sa classe mais avec des démonstrations avec les textes wan leen li leen li ngeen wax yëpp amul textes yi ngeen di wax amul gàcce moo fa amoon man dama rusoon man en tant que citoyen pour mon pays mais elle a été d'une hauteur extraordinaire et j'espère que des magistrats comme ça danañ tase ak ñoom mais li ngeen war a jàpp mooy c'est pas le dernier recours c'est loin d'être le dernier recours il y bokk mais il y une mais, pression mais, mais, telle que. mais la magistrate la magistrate bu fekkoon li mu wax contre-pied bi la wax est-ce que dina tax qualité yi nga xamoon ci moom nga mën koo ko toujours. di non loolu loolu loolu da du am doon am ci nit kii parce que elle fait partie de ce que moi j'appelle la noblesse de la magistrature bu ñuy tudd ay Mody Coumba Ba di tudd ay euh, euh, le président euh, comment il s'appelle encore ñu mel ni Youssou Ndiaye ñu mel ni Seydou Ba euh, ñu mel ni voilà ñooñu magistrat yooyu c'était la noblesse de la magistrature cette dame là en fait partie elle n'aurait jamais tenu un discours contraire à ce qu'elle a dit hier elle n'a jamais fait ça donc euh, man bettuma ci côté boobu